ñu leen di nuyu yéen ñëpp ci nekk sa tur ak sa sant di kontaan seen teewaay yéen ñëpp ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi fi euh, man Zarko maa ngi lay nuyu di kontaan bu baax a baax ci sa teewaay di di xamal leen que ni ñëwuñu fii pour buuxante wala werante wala xëccoo wala kenn di jaay moromam lenn dañoo ñëw pour defar pour yaatal pour ñu xam ni Grand Yoff ñun su Grand ñoo mun a defaral garaayal suñu bopp du Macky Sall du Matar du Khalifa Sall du Boubacar Camara liggéeyu Grand Yoff mu ngi war a commencer ci jeunesse su ñi nga xamante ni ñoo fi yeewoo ñu jéem a suñu mentalité jéem a conscient tuuti xam ni jarul àdduna jarul xëccoo jarul buuxante jarul rayante Matar Ba bi fi ñëw c'est une autorité te wan nañ ko war wan loo xamante ni dina ko yokk fit ba tax na suba mu ñëw dugg biir gënaayam defar fi loo xamante ni amaana man sax mun na ma fi bañ a fekk mun na fi fekk ñeneen te loolu njëriñ gënaayam lay doon liñ leen di ñaan rek mooy li laa war a suul yi ku ci nekk si ñun fa nga nekk na nga toog ànd ak dal ñu toog déglu wante parce que euh, xew boo ci demee danga war a am loo yóbbu pour bu ñuy nettali ak lépp lu ñuy wax nga xam la ngay wax parce que Garaayef ñun ñëpp xamante nañu bu ñu naxante euh, loolu nag benn parenthèse la woon rek li may wax euh, ci làmb la ci sport man làmb laa xam ak sport monsieur le ministre Matar Ba ñun waa Garaayef kontaan nañu bu baax a baax ci sa teewaay kontaan nañu bu baax abaax baax ci sa ñëw biir Garaayef dina xamal ni toutes les portes sont ouvertes am na nag loo ma jot a du tere dinaa ko yeggee jeunesse Ibrahima yéen jeunesse bi nga xamante ni bëgg ngeen liggéey man dara ko de monsieur le ministre wax na ma loo xam ne dañuy commencé liggéey ci sax bi te jeunesse Ibrahima bi yëpp dina leen jël li ma bëgg ngeen xam rek mooy Grand Yoff man Zarko li ma doon wax moom laay wax suba moom laay wax gannaaw suba Grand Yoff moo ma gënal parcelle Grand Yoff moo ma gënal Pikine Grand Yoff moo ma gënal Guédiawaye ñun ñëpp te lépp loo xamante ni dinañ ko def ba jeunesse su Grand Yoff nekk numéro un si la ñuy dox duñ ko mës a bàyyi lépp loo xamante ni dinañ ko def ba ñu changer image su Grand Yoff gën a respecter Grand Yoff parce que fii sama gars bu ñu seetaan nañu xam ne on est devant la presse lépp lu fiy am àdduna bi yëpp koy seetaan kon ñun ñi nga xamante ni ñu ngi fii di doomu Grand Yoff nañ leen jéem a wan loo xamante ni ñëpp dinañ ñu naw dinañ ñu respecter ko bu bàyyee écurie Rock Énergie man bi ma fay jógee neexoon na trop de neexoon na trop ñu ngi ànd ak Modou Lo di di dawal oto yu baax di gis ay kilifa ñu ñuy jox lekk te man dama bëgg ndawal ñu ñuy jox lekk di def di am xaalis ma ne ko fa ñukk ñëw ñibbi sama kër ak dóor dóoraat ak dóor dóoraat ma ne ma bàyyi ko fa ñëw teewal sama gox parce que xama lan moo tax man damay doomu Grand te gis nga kii nii di président Grand Yoff ñoo fubalandoo man may góolu moom muy fubal siis muy i Dramé ba pare di takk suñu capitaine bi yaa ngi comprendre kon ànd bii nii du ànd hasard wala ànd boo xamante ni dañ ko créé man lii laa gëm man sama lépp Grand Yoff la di wax ni jeunesse su Grand Yoff encore une fois li laay war a suuli nañ leen jàppante te jàppoo gis loolu noonu man sama bopp lu ma valoriser la man sama bopp xam naa ni doomu Grand Yoff laa te doomu Grand Yoff yëpp dinañ ñëw teew moo tax du ma woo kenn te ñi fi teew ñii ñëpp ku ci nekk da nga xam ni yow mii li Zarko koo intérêt Grand Yoff la te suñuy intérêt ay doom la suñuy intérêt ay rakk parce que Matar Ba yàgg na ci ministère de dem na fu nekk mi ngi def su euh, soutien fu nekk mi ngi soog a dugg si Grand te ñun suñu jëmm xam nañ ni dina defar Grand Yoff dina jàppale jeune su Grand parce que nee nañu vendredi bi naa ànd ak Idrissa Seck dem seeti ko te dinañ ko seeti te dinañ ko wax suñu mbëbët suñu jooy ñun ñii ñëpp ñun waa grève xam nañu lan la ñu bëgg te xam nañu moom li mu wax def ko suñu jooy benn la muy suñu terrain suñu terrain mooy suñu jooy ñun jeunesse grève yëpp te loolu duñ ko mus a wax loolu du lu ñuy wax ci mbooloo dinañ ànd ak i dem toog ak Matar Ba ne ko ñun jeunesse su Grand suñu terrain suñu bakkan la te daf ñu ci taxawal par force daf ñu koy defaral dañ ñu koy jox ñu ciy football. parce que moom sport moo ko ñor parce que wan nañ ma léegi benn photo boo xam ni c'est un ancien arbitre kon donc moom day dundal sport bu ma dellusee see tamit di gërëm toute la presse bi nga xamante ni ñu ngi fi di kontaan ci presse bi yëpp di kontaan ci communicateur traditionnel yi di kontaan ci géwél yi di kontaan aussi ci Samba Suuna di kontaan kontaan bi nga xamante ni amul àpp muy sama yaay bi nga xamante